ibnu salaam di jubóog di di di di jubóog ñëpp looloo tax li ma gën a kontaan mooy daaw ci benn jamono ñu naan ñu naan ñeseen dañuy xeex te ñeseen ak tuyaawoon mosu ñoo xeex mosu ñoo waxante lu ñaaw xam ngeen fañ ju fa mu jugee gi yëpp itteelu ma la ma itteel na car mu ne ah, man la colonel Nangam aide de camp président de la république Macky Sall yow Serigne Arabi Niass ma ne waaw mu ne jox ma Serigne bi ma ne ko c'est lui-même mu ne ma jox ma Serigne bi ma ne ko c'est lui-même man la man la mu ne ah baal ma Serigne bu wax naan c'est lui-même day gisaguma ko <laughs> waaw président ah, Macky Sall ne ma damaa jot benn rapport daanaka Tivaouane ne bëgg a def benn réforme boo xam ne une guerre civile dana am damaa yow rek laa yaakaar ci réew mi ci loolu xalaatuma kenn. nga xam ne man nañ ci dara joxuñ ma échange joxuñ ma dara nag ma daal téléphone sëñ Babacar Sy Mansour nettali ko day ñëw tuub si day ñëw nii dañuy ñëw nangam dañuy ñëw nangam nangam ndax ndax bu dul dara yow yaay sunu mag te ñun dañu respecté mag mu ne ma déedéet ma may may ma rek man maay ñëw mu ne ko ñi ma laa déplacé mu ne ma tuyaaba ji ci nekk xoleen wax ji rek damaa bañ nga jël ko man ba ndax yonent bi sallallahu alayhi wasallam moo ne du ngeen ma Euh, du ngeen ma laaj lu gën julli xam nga da ngay dégg ñu naa waa julli la ñuy njëkkee del déedéet am na lu ko gën yonent ko wax di du ngeen ma laaj lu julli ñu ne ko am na mu ne bien sûr lu gën koor lu gën a ah, de de makka lu gën nangam ñu mu ne islaahu daatil bayni mu ne ñaari mag yoo xam ne buñ tisaan ci jàkka yoo jiwaan ko ku nekk téye sa korom on oh, on oh, on oh, ko kanaan on te fekk kat dara la dafa bëri dafa bañ a sàmba wala mu sàmba it bëggati niru nangam rek muy kos-kos la yontu nee na nga fexe ba ñaar ñu juboo di akolaatante tey ree yontu nee na coefficient ba la bëgg a xam nga ñun jàngalekat lañu coefficient ba moo ëpp doole julli da ngay dégg ñu ne doole wala nii naa sëñ Abdou Aziz nee naa ko waat naa ne lu dul julli waru la benn xarit doo doon sama xaritu bàyyi di ancien président assemblée national génn àdduna mas wax ne euh, do conditions yi su may doom yi dund ci Dakar so diamétralement opposé ak ya ma doon dund ca Ndar ba may élève dama daan bàyyi bañ taal reer yi ma ne jàng sama leçon c'est le contraire ñu ngi ci néew ñu climatisé ak yooyu yëpp loo may sant ma naafilaa ko santee ko yàlla tey ma ne ko yow naafi la waru la naafi la ci sa poos <laughs> dégg nga wax yow naafi la waru naafi la ñun ñu ñàkk ñi amul dépense ñooñ la ñooñ la war waaye naafi la waru la mu ne ma at mu jot danaa yóbbu juróom benn nit màkk ma ne ko déet assemblée moo leen di yóbbu ci noté de parce que moo moobu liggéey yóbbu assemblée moo yóbbu ñooña ba nga nekk gut mënoo ko boo ko nekk doo leen doo doo doo leen yóbbu moo tax mu maanaam bi julli gi ñëwat gàmm gi ñëwat ma woo jullit ñi ñëpp ñu solidarité dimbale wante saalum saalum nag moom siiram taloo wërsëg ay bokkam la gën a mën ci dimbale ko